xalaas maawaaru mbokk yi kàddu yi képp ku ko dégg di nga ne xalaas maawaaru jom mi ngay def ci euh, soxna si nga xamante ni moom moo dund euh, mbir mu ni mel moom soxna si nag dafa nekk koo xamante ni daan dégg ñuy wax waxu mbëggeel mu daan dégg ñu ci coow mu am ci jooy am ñoo xamante ni dañ ci daan am ay jafe mu leen naan leen da ngeen a ñàkk fayda da ngeen a moom soxna si yàlla natt ko mu daje ak kenn koo xamante ni bitim réew la nekk moom soxna si ci jëmi boppam ànd gi mu ànd ak waa ji di dégganteeg moom dem na ba accro juboo ci moom ci jëmmi boppam nag soxna si waa ji soppi ko mosu koo wax waxi ñàkk fayda su koo wax waxi caaxaan waa ji ci jëmi boppam dund ak moom mbëggeel bu pur et ndax jabar la bëggoon waaye lii problème bi mooy heure bu nu waxee ñoom ñaar soxna si ni ko na fi suñ diggante yam mu ni ko nag loolu man dinañ ci masa am problème am bis waxtaan mu ni ko na fi di suñ diggante yam waa ji coupé les ponts soxna si mënatu koo dégg fenn fenn fenn te waa ji moo ko soppi moo ko génne ci yu baree baree bare yoo xamante ne ay naka tungu ne dinu tong ñuy nataal nettali ci gémmiñu borom la dàqee déggul leen soxna si jafe-jafe bi nga xamante ni moom lay dund ak xolam ni muy mettee te mënta jot waa ji bëgg a jot waaje tax nag mu fexe dugg ci xalaas maa waaru bi teewlu leen ko Fall Damel j'espère asalaamaaleykum Fall Damel j'espère que yaa ngi ci jàmm bu baax ndax man dama la daan déglu dama daan déglu say xalaat chaque ma koy déglu mais am na ay yenn histoire mbëggeel yoo xam ne yu ci daan am daawuma koo gëm dama daan wax naan moo nii de moo ku la bëggul doo ko bàyyee ku la bàyyi doo ko bàyyee naka yoo liñ naan fooy bañ ku fa fekk bu fa dem maa ngi soog a gëm wax jooju ndax man li may dund doy na waar doy waar boo xam ne ku ma ko wax sax munoo xam noo xam ku ma ko wax danga naan lii du dëgg ci ñi ma xam ñi ma entouré ku ma ci mënti wax danga ma naan lii du dëgg ndax xameewuñ ma woon loolu en fait xameewuñ ma woon topp góor xameewuñ ma woon bëgg góor xameewuñ ma ko woon lu dul nag ah liggéeykat laa moom ñépp loolu la ñuy njëkk a seede waa man daa am lu ma dal lu métti loo xam ne chaque jour damay jooy du ma nelaw ba bi set sama bët yaa ngi gëj naa nelaw mën naa ne léegi mu mat trois semaines ba mu ko gëjee gëm ma waaw façon effort bu ne nag def naa ko ndax daa am kenn koo xam ne dama dajeeg moom dama dajeeg moom mu wax ma ne ko déedéet man awma jotu bëggante sax du ma dund loolu sax duma ma dund ay bëggante ma ah ñëpp yemuñu commencé dugg ak man ci njub baax baax nag xam àdduna am jikko yoo xam ne dafa nekkoon ci man jikko yu nekkoon ci man awma lu ma ciy nëbb en fait parce que dama lay wax sama soxla pour jikko dox gaa du dem defi lu bon mais dox dox fu ma neex dugg fu ma neex génn loolu yëpp mu dindi ko ci man wan ma ne nii la jigéen wala valoriser boppam wan ma ne jigéen fii wak fii la war a teg tànkam su amee njaboot nii wak nii la war a doxalee dindi jikko yu bari ci man mais jikko bu mu mënul dindi boo xam ne xëy na nii nii ma joteeg moom tey bu ma baaloon wala mu jéggal ma jikko boobu dina deñ mooy dama tàmma wax benn wax suñ jigéen dina fi yam wala tàmm xuloo ci koo xam ne te moom dafa ma naan wax benn baat boo xam ne man jàppal ne du ma góor yooyu nga daan génnal man dama soxla ci yow nga nekk sama soxna kon man maay diriger maa la naan defal nga def bàyyil nga bàyyi ndax man du ma la digal lu baan du ma la wax defal lu bon lu baax rek laa lay digal te moom laa bëgg nga sax ci dàkk ci mais loolu dafa nekk ci man dafa nekk ci gaaw a nekk ci man mais tey laa tey maa koy tuub di ko jéggalu moom nag nekku fi euh, ci yenn réew yi la ne réewu Europe yi la ne waa def naa nu nekk nag depuis jour bi ma ko ne je me rappelle mu def un mois depuis jour bi ma ko ne na fi suñu diggante yam ci saa laa ko envoyé waan message mais depuis lors ko du lire samay message bu ma ko envoyé message du ko liir su ma ko woowee du ko jël may di may dund loo xam ne daal loolu nekk lu may dund lu metti loo xam ne loolu nekk lu may stressé loo xam ne loolu nekk lu may dund lu metti te damay jooy barke alxuraan al karim may may chaque jour sunu kër sunu sunu waa kër xale yi sama doom yi ñépp may tooñ billaahi suma ma sañoon tey mu mu ma su sañoon tey mu mu baal ma ndax sunu boroom moo ma natt ci moom ma bëgg ko mbëggeelu te yàlla tax loo xam ne mosuma ko dund sama xol loo xam ne mosuma ko xalaat ne dinaa ko dund sama xol dal na ma ci moom billaahi wallaahi taala dal na ma ci moom li may dund metti na ku ko dundul mënoo koo xam mais manqué na ma trop trop trop trop manqué na ma wéetal na ma de en tere na ma mënatuma dem fen solootuma ma xëye ba xas ba sangu ba pare jeex na maa ngi tëdd di xaar chaque instant damay xool ay message am ma bëggee sama xol bi bég tuuti damay dégluwaat ay message am pour mën a am tuuti mbégte waaw ay dundu lu metti daal lu métti ma xam ne kon man daan naa tooñ nit ñi nga xam ne dañ daan ñëw bëgganteeg nit ne ma bàyyi nañ ma ne ko bàyyi ko lan nga koy doyee naka te loolu booba daal man tooñ naa ñooñu maa ngi koy sama benn xarit woo ko di ko jéggalu di ko baalu ak mu ne ma lan la ma ne ko ah dama xam ni nga doon dund ndekete nii la woon su ma ko xamoon du ma la ma sënee bàyyi ki nga nekkaal waaw ñi may ñi nga xam ne man maa leen daan déglu tey dama bëgg ñu déglu ma wax ma ci digal ma daal lu may def lu may def ba nga xam ne souffrance bi di génnee samay rongañ souffrance bi may dund ñàkk nelaw yi may ñàkk nelaw tey lan moo koy dindi en fait lan moo koy dindi su ma sañoon daal lii jeex jéggalu naa ko nag façon jéggal bu ne ku ne yónni naa la parce que boo jaaxlee lu ne ngay def mais ku ma wax du la sax wuyu waaw ku ci nekk nag ma lay laaj rek loo may digal ak lu may def maa ngi leen di déglu yéen dégg nga waa ji won ko ni kala dikk jigéen di comporté woo naka la jigéen di war a def naka la jigéen di war a doxalee ab viam naka la naka la naka la moom daal pour pour mu gàtt daal waaye ci jëm boppam moom xamal na ko lépp luy àdduna di ko conseil mus ko woo ba ni ko wax bu ñàkk fayda bi wax naa la ko wala lii mus ko woo ba ni ko won ma sa say say sa ah ñu ne ci ah, ñoo xamante ni bu nu wootee ay appel vidéo ay ay ay ween la ñuy laajak ak won ma sa lii mais waa ji mosu koo woo appel vidéo ba laaj ko lu ñàkk fayda lu dul ni bëgg namm ko bëgg a gis kanamam donc mooy tax mu koy woo appel vidéo ndaw si nag problème am mooy naka lay defaat ba daje ak waa ji kii soxla na ay solution soxla na ay solution ndax bu ko woowee waa ji waa ji du ko jël bu ko messager waa ji du ko tontu. waaw ñàkk dem na ba ñii mu dëkkal jàpp ni daa ñàkk fayda fekk na mbëggeel lëm ci jëmi boppam moom moo ko ëpp doole ba mën a tuta woon ginnaaw ki nga xamante ni moo di waa ji ndax waa ji fi mu ko ni mu ko doxalee waaw te xam nga jigéen ñii boo leen wonee ni man fulaa fayda laa am may dirigé wan leen ni leen man dama laa bëggal lu baax ñëw dañ lay jàpp lii moo dal ndaw si ndaw si nag bëgg na ay solution ndaw si nag bëgg na ku ko ci dimbali ndaw si nag bëgg na ci jëmmi boppam koo xamante ni ku ko jàppale la également mbokk yi ñu fàttali leen ni képp koo xamante ni rek am nga aw xalaasma waaru doy waar di ab kaa bëgg koo jaarale da nga ñuy message whatsapp 78 453 48 86 bu ko defee rek ñu jaarale la sa xalaas mbaa waar mi ngi doon daal en tout cas daal ndaw si moom li mu bëgg mooy ñu jéggal moom moom daa bëgg nu baal ko waaw <laughs> moom daa bëgg nu baal ko àddunaa ngi nii de moo tax lépp looy dugg ak lu mën a doon gis nga des fois nit dina am or des fois nit dina am lu baax di ko di ko sàgganee ba ñàkk ko waaw waaye nag waa ji tamit nag na xam ne tamit nag fi ndaw si toll ci moom nag mu wëlbatiku nag ñëw jàppale ko te yàlla tax nag parce que tamit nit ki dooni danga ko bëgg mu def benn erreur nga bëgg ko cee bàyyi parce que tamit nag euh, erreur est humain te nit munoo waat ni yow mi nga xamante ni yaa bëgg a nit ki ci erreur bi mu def yow def erreur donc kon benn erreur bi mu def nii rek rek rek rek rek sa mën nga ko ci baal nag mën nga ko ci baal nag mën nga koo baal nag ngeen àndaat ci jàmm ak salaam kii moom tuub na tuubi ruubi dootu ko defaat moom ndaw si nii mu waxee moom dootul waxaat mukk mbaa mu defaat mukk mukk mukk mukk leen loo xamante ni lu koy lu koy lu koy lu koy lu koy lu koy lu koy dugalaat ci gute gi la. kii dem ba àgg ci di dégluwaat ay message waaje ngir ngir ngir xolam mën a neex waaye yéen kii bëgg na ma ne ko kii nag bëgg na. kii nag bëgg na te nag moom nag nee bu waa ji dikkaatee lépp lum ko tere dina ko bàyyi teg ko ci suuf ngir continuer dundam ak waaj xam nga ni doy na waar lii mooy tës dëgg dëgg mooy tës beneen mbir mu doy waar ñu indi leen ko ci classement waar bi di benn kaa boo xamante ni waa ji moytu leen gis nga Sénégal moytu leen ñiy ñëw naan leen courtier laa xam ngeen courtier damay loué ay kër damay def lii waa ji lekk nanu xaalisam presque quatre cent mille yoo xamante ni encaissé nañ ko ci moom te amul kër gisul ko ko encaissé gisul courtier ba waa ji nax ko dangay ngay avance da ngay dugal da ngay def lii da ngay def laa ba lekk li nga xamante ni moo di xaalis. waaw loolu tamit nekkati mbir moo xamante ni tamit c'est à faaw ñu xoolaat ko bu baax a baax a baax a baax gis ngeen bàyyi leen en lii yi sàmm su góor gay mu jóg ne damay luwee ay kër ngeen di gëm ko wàcc leen loolu déglu leen waa ji ni ñu ko def dañ koo dippee dañ koo nax dañ koo. xëlamti farine bi carrément teewlu leen. dama am benn bu ma arriver woon léegi nag euh, ma bëggoon sensibiliser nit ñi euh, maa ngi gis ba léegi nag nit ñaa ngi def ay cherche location appartement à louer si si si Facebook bi man euh, li ma ci arrivé mooy kenn dafa am benn waay bu ma bu ma bu ma. gisoon mu dugal ay photo appartement fële Liberté 6 extension léegi bi ma ko contacté mu ne ma effectivement appartement bi disponible na mais léegi da ngay bàyyi ba suba nga ñëw visiter ko ma ne ko amul benn problème ma ne ko ban heure mu ne ma treize heures man ko dina tombé sama heure pause sax euh, dinaa mën a ñëw visiter man ko frais de visite bi ñaata la mu ne ma deux mille ma ne ko amul benn problème duñu boole ci suba gi bi ma koy woowee heure bi ma waxoon bi ma jëlee pause ma ko ba sonn jotuma ko ma ne amul problème après le soir mu woo ma ni ma ah maa ngi sa appel gisuma ko léegi laa ko gis ma ne ko ah ma ne ko ma ne pour visiter appartement bi euh, fii Liberté 6 extension mun ma ah ok am na benn femme bu ñëwoon ko ba kooku joxoon na ko benn mois avance ni après Mbour lay jógee ni après dina ko indi deuxième yeneen deuxième euh, kii moitié avance muy deux mois man ko ah bon ah, kon du du sama chance quoi amul problème comprendre léegi nag bi mu defee lool ma toog bi mu woo du matin bi ma woowee mu ne ma sama boy yi bu ñuy def dara bu ñu yóbbu affaire mais bu fekkee mën nga ma euh, avance bi mu joxe woon boobu moom soxla naa. si ma ni ko non avance bi ñaata la mu ni ma léegi da ngay indi deux cent mille bi nga envoyé ma ko weer mi delloo ko fam bi yow laa ko njëkkoon waxante ma ni ko ok loolu du problème ma je fais confiance après man si biir wax ma ni lu waaye def sa bopp mais benn problème man sama xaalis maa ko li mën naa ko envoyé léegi ma envoyé ko weer léegi moo ko envoyé weer mu ma léegi mu dem ba ay dix mu ni ma amul problème léegi da joxe beneen mois caution yi de ma envoyé ko deux cent man maa ngi naan ah amul problème kii nit ku baax la quoi ak wax ju sedd geek affaire yooyu noonu ma ne am problème man bu mu gisee nii dafa lay jàppee ne sama bopp quoi léegi nag euh, boobu laa ko gëj a dégg ñu ko envoyé deuxième envoi bi laa ko gëj a dégg laa gëj a su ma ci numéro bi ma ne si saa si dafa supprimer suñu discussion yëpp yëpp yëpp WhatsApp. si stage bi ñu jot a dugal ñu supposé suñu discussion yëpp WhatsApp envoi baa ngi noonu ñaari envoi yëpp ngi noonu numéro baa ngi noonu noonu bii récupéré wees beeg yëpp mu ngi noonu nag moo tax nag su ma gisee nit ñi di dugal ay appartement fee kii di wax a rafet dama leen di wax leen ci génn ku ci soxla location dama ci courtier dama si koy man de xaw ma kan waaye man dootuma ko defati. ah yaa kan yaa ak ku nu du ko defati ak ku dégg du ko defati. parce que tamit euh, euh, euh, dama yenn yi des fois nit ñi dañuy jàppee seen bopp noo xamante ni noonu ni nu mel noonu la ñuy foog ni noonu la ñëpp mel des fois nit day baax naturellement. nit day baax naturellement baax naturellement jub naturellement da jàpp ni képp koo séqal rek wala tamit. na ngay dem ba ni xanaa nit na du dem bay afficher numéro am wala nangam di di njublang te xanaa xamoo ne ñi lay gën a ñi ngay gën a séqal ci benn cas wala benn business bu ni ci genre yi ñuy ñëw di la woon mbaax di la woon jub di la woon naan day leer day nii day naa am na ci ñoo xam dañ lay àttan nañ laa yóbbu ba seen kër ngir nax la fekk na kër gu nu luye lay doon wala lii wala laa donc gars yi nañ def très très attention ci ñi ñuy dajeel ci réseaux sociaux yi dégg ngeen nañ ci def attention bu baax a baax a baax a baax man yow ci sa jëm da ngaa bëgg li nga xamante ni moom moo di ni euh, chambre dañuy dem ba ca ni kër ga ma xool chambre yi may luyee yan chambre la caution bi ma jox la ko mais amee nga jox ma samay caabi ma dem waaye ay costion en ligne joxe caution nga envoyé nit ki te jotoo goo ci caabi jotoo xamoo ko sax kër gi fu mu ne waa xam nga tamit loolu tamit tamit nag des fois tamit ñun tamit il faut ñu utiliser suñu ay xel tamit nag bala ñu ñuy nax nag nag tamit nag ah gaa ñu jox leen dig daje ba suba ak jàmm ak salaam ci xalaas maa waaru merci beaucoup chapeau à vous jërë ngeen jëf gis nañu teewlu gi képp ku am ab xalaas maa waaru na nga koy envoyé ci 78 453 48 86 merci à vous.